internet Pikini production nuyu nañu leen ñuy am mbégte di leen dalal ci suñu plateau bu yanj bi di la famille Deyal la famille Deyal nag doon ab jongante ci diggante ndey Awa Mariétou Khadija Latmengue Yacine Adja fi Mounas Nastu ak ndey Anta ñuy ay jigéen tollu ci sëy jekk lool taaru macha allah ñu nekk fi tamit ak seen prince charmant

Ndeye Awa nuyu nañu la. Euh, fay naa la sax man la nday Awa dofu Chérif <laughs> di nuyu ñi nga xamante ne nag ñoom ça rek laa leen di wax. <laughs> Euh, maa ngi nuyu ñëpp ñu fi toog euh, man la Marietou di chéri na tuuti. <laughs> asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp ñu fi toog alors man maay Yacine di lingeeru Chérif. Assalamualaikum, maa ngi nuyu ñëpp ñi fi toog man la Khadija jabaru jëkkëram ok. <laughs> man la laat mengi di séeri sama borom kër. salaamaaleykum yéen ñi ñuy seetaan man la nday Anta man maay Chéri Habibi. asalaamaaleykum maa ngi nuyu euh, ñëpp man la Nastu Baby Chérif nekk sama nutella merci. il paraît que sa sa sa jigéen ñi mayuñu la dara de. non boo la dara. def nañ tey ba mu baax def ba xàmmeetuma leen ñoom ñëpp en fait man li ma li ma li ma leen njëkk laaj lenn la nit ñaa ngi wax coow li bari na Chérif Chérif Chérif góor ñi bari tey bu ñu sañoon nekk sa place. ñëpp naa Chérif li mu bëgg dafa yomb dajale jigéen ñu rafet Sénégal ñëpp <laughs> bëgg a nekk ñoom loolu yombul. non je dis que ni chance en même temps bon comme man m'a féete opposition bi mën naa leen wax rek ne parce que en quelque sorte damay représenter aussi euh, benn parti ci góor parce que ñaar rek ñoo fi soit nga am jabar ba soit amago mais yaa ngi waaj a jël donc aujourd'hui ñi nga xam dañuy dañuy gis si mën nañ jàng aussi ne tànn bi du yomb parce que là j'ai la pression quand même. deug la tan bi mënul yomb tan bi mënul yomb parce que bo dajalé jigéenu Sénégal mënoo tan si parce que kenn ku nek amna lo loo war nga ko mëna téyé donc tan bi mënul yomb ci yow mais tamit du jafé xana ba mu jeex. Euh, je dirais pas que ni dina dina jafé mais yombul aussi yombul parce que certes j'ai eu à passer du temps ak ku nekk ci ñom et. Euh, lu mu gàtt gàtt gàtt gis naa si loo xam ne neex na ma ci ku nekk ah te ñoom ñëpp même si ku ci nekk aussi am nga ñaar wala ñetti faay yoo xam ne tey jii nii voilà gis nañ ko et puis comme guddul woon c'était un peu short dañuy faral di wax ni jigéen bi nga xam ne dafa bon sax jar na ay téeméeri milliards donc jigéen bu bon amul ñëpp a baax yow yaay xool ki nga ne ngay choisir et actuellement je suis complètement dans la merde. <laughs> <laughs> Est-ce que est-ce que wéetoo ci choix tamit. ñu jël la bolé la ak ay jigen tam ñom ñep kenn ku nekk melni nga wara a mel ñu ne la yow dong ya war def sa choix méttiwul ci yow. non dafa 10 dafa 10 parce que man suma ma et puis suma ko l'islam mayoon damay jël neuf yëpp <laughs> mais bon ça va être compliqué et qui dit choix dit éliminer plusieurs pour tànn kenn rek c'est difficile c'est difficile te tay franchement dafa diis maa mangi ñak gis nga ah. <laughs> voilà ñom ñep ko ci xol je pense que ni mat na jigéen ci biir kërëm et ça va être vraiment mais vraiment difficile de dire que ni qui laa pour mu ex, sama femme idéale voilà donc foofu tamit dañ fay jaaraale lancer waale benn appel ci internet yi nga xamante ñoom ñoo ñuy seetaan di leen wax ne tamit lii euh, compétition la kenn ku nekk ci ñoom war na mën a gagné waaye yéen ñuy seetaan tamit kenn ku nekk ci yéen am na koo xamante ne tey jii bu nekkoon sa wet nga jël ko donc tamit dañ leen di wax ni choix bi fii nii moom mi di Chérif moomul 100 pour cent yi 40 pour cent lay def def choix am 60 pour cent yi daf leen ko delloo yéen ñi nga xamante ni yéen a koy seetaan yéen yéen a ko safoo. merci beaucoup Absa comme ni ñu koy expliqué nii nii voilà mënoon naa ci teel coup, mhm. mais problème de temps toujours le fait poser parce qu'aujourd'hui c'est vrai hein manque de tendance je dis parfois <laughs> certains trucs et tout et c'est normal hein, c'est normal donc ñoom cette année déjà je lance un appel à tous les téléspectateurs de Pikini Production à tous les internautes à surtout les sénégalais de la diaspora ak sénégalais qui nga xam ne nous ci biir euh, dëkk bi euh, ñu juste un jeune sénégalais bu jël

nga and ak kenn ku nekk ci ñoom passé ak moom du temps nga gérer ñoom ñëpp kenn ku nekk ak seeni humour ndax nit ku nekk ni la yàlla bindee est-ce que yomboon na ci yow. non pour dire vrai c'était pas du tout facile mais méttiwul woon aussi parce que ay jàmbaar lañ comme je l'ai dit tantôt euh, ku ci nekk góorgóorlu nga avec euh, les peu de moyens yi la yàlla jox ba nga jëm xool naka ngay def ba satisfaire Chérif te yombul won aussi hein, yombul won parce que comme on dit Ken matul nit matul trouver la femme idéale ça va être compliqué mais damay xol rek par rapport ak ñom kan mo ci idéal par rapport ak sama <laughs> loolu lool nak boko naré wër yaakaar naa ni tay ji dina métti ci yow parce que tamit mën nañ né benn femme idéale, mais li tax mu idéal yow yaa koy def ci mom donc li ñuy xaar ci yow moy nga def leen ay femme idéales ñom ñep lool mo leen fi taxato donc ci biir loolu tamit kenn ku nekk ñom nga dem nga nga dem seeti ko passé ak moom du temps ñu gis ni dem nga ndekki ji ci marietu ndekki bi neexoon na de. <laughs> trop sax. léegi dañuy dañuy dañuy ànd dem xooli lan nga dund ak Wow. bu ñëwee ñu laaj la nan nga ko gisee. waaw. est-ce que affaire bu ndaw rek ma. comme je Fiege genat ni? Fila genat. Tu sais sànq bi ngay dugg di nelaw nga dugg si sama xol yeewu bu daganoo damay dindi sama xol jox mais c'est impossible moo tax ma fas kii nga jox la ko nga ma sama ngay nelaw di ca neex

Bwe tu go kasa fa ou Tia mon bo pa ou Kien kha moun dia na chi a kasa fa Oh oh oh Tia mon bo pa Où sont tes toilettes? Mmh, voilà, vous guidez mhm. La porte à droite.

looñu mën a wax ci Mariette bon comme ni ma ko waxee ans, ah euh, Mariette c'est une femme formidable déjà nekk naa ak moom même bu dee euh, une journée là, ça a été une belle journée kaf nañu foo nañu ree nañu ci jàng naa ci moom lu bëri franchement gis naa ni mën na mën na toppatoo góor et puis mën na góoram quoi elle s'est bien donnée joxe na li mu am yëpp ngir dab bànneexu góoram donc, franchement, Chérif te dit merci encore une fois. <laughs> Ça a été une belle journée. C'est vrai, comme nous l'avons je viens d'interpeller Ben appel pour Khamne, Mingi Wach et Haritam, que genre. D'où le bon, quoi. Je ne appelé le bon, mais Mingi, Mingi Wach, elle était beaucoup plus intéressée par l'argent et tout. L'autre aussi, tu qui, qui aille péchéem lay bokk ah ci erreur yu mu jot a def lay bokk mais quand même jot na jot na jot na jot na satisfaire yeneen point yo xamné aussi c'est important bi ñu nekkee yëpp jéem na dund loo xam pour dab bànneexu Chérif la waaw salaamaaleykum waa internet Pikini Production ma ngi leen di nuyu di leen ziar ma ngi tudd Kidiva ma ngi nekk ci femme idéale di interpréter rôle lu tuddu ci Marietou merci. waaw nañ ma xaar ci beneen facette euh, ñu xam ne jigéen kenn bonul euh, parce que ku fi sañoon tey doo nangu ñu bonal la ndax ndey ju la sukk jur mais euh, peut-être euh, dañoo ñàkkul a xam rek te suñuy xel matul ñu ñuy comprendre aussi. Euh, Chérif su ma ko wanee ne ko man sax damay mbaraan du question parce que jigéen bu nekk ak ni muy bëggee peut-être bëgg naa ko mais maa ngi jëlee ci sama beneen mbaraan di def le tout pour satisfaire ko xam nga mbëggeel nag moo métti te doy waar mais du question que ne dama bon wala dara. mais am am naa yaakaar ne daal ba mu ñëwaatee ci yeneen ni tendance yi di ngeen xam ne daal incha allahu rabbi Euh, di ngeen ma gisaat daal ci yeneen facette loolu laa mën a wax incha allah. waa mbaraan bi mën naa ne <laughs> mën nañ koo bàyyi parce que mbaraan tax na mbaraan euh, taxul jigéen bon takk nañ fi jigéen bi nga xamante ne mi ngi ci leneen ak leneen te tey jii bi ko bëggee changer changer nañ ko mu nekk beneen nit góor mën na changer euh, jigéen jigéen it mun na changer jigéen góor. parce que tamit mën na am défaut nga xamante ne un de ces jours mën naa ko gis ba changer ko man mii tamit parce que kenn matul. dañuy mottaliwante loolu mooy euh, àdduna mais du ñëw ne man maa sikk moom it dinaa gis ci moom sikk mais mbëggeel moo xoolul sikk mbëggeel xoolul passé mbëggeel xoolul leneen amour la rek mais du leneen. non sama deuxième parti bëgg naa wax ko vérité parce que dëgg mooy njëkk te mooy mujj te ni mu ko yëgee ci premier parti bi nekkul li nga xamante ne gënal na ma. mais dinaa ji ma xool naka laa koy rectifier aussi ma sàmm sama kàddu su ma ko promettre que ne dinaa bàyyi mbaraan dinaa bàyyi mbaraan parce que boo bëggee da ngay prêt à tout. Euh, ginnaaw ku ndekki tamit di nga añ. Mhm. nga jógee foofu noonu. Mhm. ñu invité la añ. Mhm. ñu dem xooli ji élément Khadija te ñëwaat. la ilaha illallah digal nga ni ma neex na non déggoo li ma la wax namatuma mère penda mbay digal nga ni ma namatuma daraay ndar kontaan nga non ni ma kontaanee kon delloo naa la ndar non nag ma yombee nag ma yóbboo ndar fa ëpp sax bis boo ma takkee ba yóbbu ma sa kër ma fay daagu doon sa lingeer jëkkër nga xam sama yaay liggéey rek la ma jàngal lépp lu jigéen def mën naa ko macha allah ceeb bi xam nga fa laa ko toggee mën a laa jël diri ko xambu samay mat bëgguma dara lu lay gaañ nga dellu ca maam ya jéem ñu foofu cosaan oh, yée ay waay ba rey ma ngénte la ma war a dem gis nga ndey jóob sama xarit bi moom la wu jaam di ngénte tey dama ko fàtte. ok. waaw day ngénte. wajja may ngénte xam naa premier solo ba raw na ma waaye damay dem pour deuxième solo bi rek du yàgg dem ñu defante rek ma ñëwaat incha allah. léegi ah mais kon solul ñu dem may yóbbu. Ah, nu may def. xaw ma nu may def. jonge feeñ na. ndax buñ né teranga Sénégal ne ceebu jeun pen mbay Chérif xalé bi yóbbu na la ndar dé <laughs> non nangatuma ndar comme nima ko waxé légui ni ci euh, biñ ko sétané mm. franchement c'est une fille adorable comme nima ko waxé aussi avec mm. elle damay retaan. Mm. pratiquement avec ñepp ah mais mom daf may daf may fax spécialement. donc voilà comme comme comme mom aussi hein ah, gis nañ ay fayam comprendre donc euh, gis nañ ni dafa annoncé ni moko togg alors ko togg ko xaw pourquoi togg ko je me suis pas posé beaucoup de questions mais j'ai noté ça j'ai vu aussi que ni dafa faratal xew bi au lieu de s'occuper de son nom ñu ngi dem fële alors que du du ñàkk bëgg quoi du ñak bëgg mm-hmm. comme à l'unanime ñom ñep li ma gën touché ci affaire bi moy je l'ai dit y a une question bo xam ñom ñep mm-hmm. dañ ko nangu c'est-à-dire que ni tay am na jigéen yoo xam ne boo leen waxoon sëy ñu wax la leneen mm-hmm. mais ñoom ñëpp dëgg la loolu loolu loolu peut-être yow dina la bett mais man en tant que jigéen comme ñoom du ma du ma jaaxal parce que ku ne jigéenu senegal ne taaru taaru taaru jigéen ñu ne la sëy donc ñoom buñ la tontu woon leneen lu dul sëy tamit. def nañ lu leen neexul wala lu neexul seeni waajur ndax jigéen jigéenu Sénégal dañ ko yar ci këru famille mu judd fekk yaayam di doxee noonu ay tantam di doxee noonu donc loolu rek la mën a doxee ñoom ñëpp ñu fi toog loolu rek la ñuy xaar alxayri jib ñu may leen borom kër ñu dem sëyi donc kenn ku ne tamit yaa ngi def sa effort comme moom. ñu la gisee ni nga doon lekkee ceeb bi ñu war a xam ne ceeb bu neex la tamit ñu gis la nga kontaan lool di reetaan waaye plat bi ndawul woon ci yow. non mais dañ koy wax te dee mais ndawoon na ndawoon na moom je n'ai que plat bi ndawoon na et que man bëgg naa ci jigéen mu nekk jigéen bu xër.

ay manquement la mais aussi toujours il faut savoir que ni dara du mat loolu tam luñu mëna dindi la. deug la comme comme ni nga ko waxee rek lu ñu mën a ci ñom si ñoom si ñoom mhm. ñooñu ñëpp. Mhm. mbokk internet yi mala la Aminata Wade man may incarner rôle Khadija ci femme idéale ah. <laughs> choix bi mom dama koy rafetlu bu baax a baax macha allah damay rafetlu choix bi mu def parce que daf ñu mayat benen sens ñu gëna xolaat suñu bop gëna xolaat ñun ñoy kan nga def defaraat suñu jikko yi. parce que macha allah macha allah sama jëkkër Chérif moom jëkkëru njëkkante la comme suñu ma mayaatee beneen chance dañ ciy nekk waa ñaan yàlla rek jël ndam li mu takk ma jàmm ak salaam dëkk bu toj <laughs> Khadija de xam nga kon man daal feeñ naa comme man feej naa naka te sama jëndi añ bi Chérif yëg na ko comme yëg na ko nag instant bi dinaa gën a def loo xam ne nii dina ma nopp ba macha allah ba takk ma pour yéen rek toog leen ngeen xaar femme idéale du yomb benn benn benn yoon dinañ ci nekk macha allah.